donc ñu gis ne que Youssou Ndour euh, annoncé na li nga xamantene ne moo di pause am et tout donc en tant que jeune ñenn ñi ngi wax sax yow mën nga nekk relève bi yow euh, ban analyse nga ci am. waaw pause moom mën nañ ko nangu hein? mm-hmm. parce que ni mu ko waxee rek dafa am lu lu lu cher lu jóge ci moom essayez de comprendre aussi un peu mm-hmm. vous savez euh, euh, c'est après que tu comprends su bi lii amee il est comprendre beaucoup de choses. hein. j'ai envoyé des vidéos il sama pas yoon beau man boo ubbee xol maa ci nekk moom ça ubbee sama tu vois alors bi affaire bi amé, sa réaction auto automatique automatique bi hein. la mu def ci armée li mu jaabante sama kër ku la ko waxoon day doo gëm jaabante kër mère bi lu xew bah ci fan yii passé ñu dégg benn affaire pour Alioune il l'a appelé pour voir eh, qu'est-ce qui se passe est-ce que ça va xam nga loolu c'est-à-dire en fait c'est un poids bu denc ci moom waaw waaw. léegi relève bi. le xam moom lan la planoon ak Papa Thione lan la bëggoon def ak Papa Thione lan moo doon yéeneem alors dafa dafa brutal ci moom man je pense que euh, lolo bokk na ci tax yi tax mu